ne mu teral leen sagal leen jox na jox leen ay millions ne yërëm leen ne xam ñooy kan ne ñoom neexuñoo supporté ne bu nekk au ñoo xam ñooy kan ne moo leen jege ne ne boo leen jege na ñoo xam ñoom ñoo ñan ne dañoo ñoom dañoo lëndëm ne di gërëm nag sang bu baax bee nga xam ñoo ko may soxna ne fàttaw laay mu baax mi mi nga xam ne teral la ñëpp ne xeeboo ko benn yoon ne yërëm nga ko. foofu na ko yàlla suturaal. di gërëm ñi ñi ñi ñëpp di ma fekk si fii tey. naa nit bi naa nit bi. am naa chaise yi. am naa bâche yi. am naa micro yi. am naa maa ko liggéey. kenn liggéeyu maa ko liggéey tey fayuma kenn woowu ma kenn ñëw bëgg ñëpp gënoon a di xew rek kon loolu sant suñu borom la nee sant rek suñu borom gërëm ñu ne ñëpp nee gërëm ñu fi mooy borom kër gi muy El muy El Hadj papa El na ko yàlla suturaal a kawe kawe nee yal a yëkkati ba mu gën a kawe xew bi jàpp na ci ci lépp nee sama yaay dama koy gërëm nag muy Ayda ndax tey li yëpp moom la. yow coow li coow li lépp moom. su ma jurul woon du am. yow bu ko jurul woon lii du am. ku baax la yow ku baax la. ku ma yërëm la nee ku ko yërëm la ku ma fonk la nee ku ko fonk la yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla jàppale di gërëm sama papa nee di gërëm papaam yal na ko fi yàlla bàyyi yal na ko fi yàlla bàyyi yal na ko yàlla suturaal nee yal na ko yàlla suturaal di gërëm sama xarit yëpp ñu ma fi nee xaritam yi fi teew ñëpp rek ku ci mel ne sang nee gërëm na ñëpp di gërëm sama xarit tamit nee di gërëm doomi ndayam xaritam coow li coow xew bi tamit nee xew bi nag def na ci dooleem def na ci dooleem jox na ci alalam def na ci alalam jox na ma xaalis jox na ko xaalis ñëw bi ma ñëw nee ñëw bi mu ñëw moo jël téer nee moo jël téer fay ko fay ko nee ma Pawlish nee ma Pawlish bëgg ma ko sol leneen bëgg nga sol leneen sama yër laa bëgg nga sol sama yër nga bëgg a sol amul waaye mi ngi may sutura nee amul de waaye mi ka man de nga. yoo. suba ma ne Massa Ousseyn Keita. léegi nag. mais nag mais nag il est temps Viviane Ouzin mu takk jabar il est temps Sénégal. Ouzin xoolal xale bu njool. xam nga xam nga xam nga jabar la nga koy taal mën ngaa ta dama takk jabar soxna laay takk. soxna dëgg takk waaw dëgg la waaw ndax booy takk. da ngay da ngay xool ndayam xool baayam xool famem man ma takk nit ko ma gàddoo ma gàddoo mu gàddu jàll si koñ ba damay takk xale boo xam ne fu ma ko teg na ko toogal maa ngi ñëw fa laa koy fekk eh. may yow suba teel te dina jaar mosul dugg boîte. wuy ma may yow suba teel. wuy ma may yow suba teel mu defal ma sang ba ma set man sama jafe sang. ah yow la sang. waaw koo xam ne ñoo bokk na ñoo bokk maa moom. <laughs> bii bul bëgg soxna soxna moom nay bokk moomay sang moomay toppatoo. Hmm. dèjà booy da ngay takk koo xam ne bëgg te yàlla takk koo maa ko bëgg damay takk koo moo bëgg. Hmm. kii. seekat la kii. dégg naa yaa ko yar. maa ko yar dafa dafa maa yar jaar ma ki may ni yaayam. néegu yaayam nga ko bindee wax nga ko sànq. yaayam ngi ne toog dëgg la jaaro mi. Hmm. dama doon tëdd nii yaayam tëdd dama tëdd seen ginnaaw di waxtaan ak yaayam sama xarit. non non non Ouzin ñeme woo loolu. Ouzin sa goro la nekk. yaayam. Eh. Eh, Pawlish nag sa ànd ak Ouzin mu ngi doog a leer nag. dëgg la waaw loolu leer na. ndax nee nga ma mm, mm, moom nga jox. troisième. ah oh oh oh. waaw 20 ans fekk nga waaw fekk de fekk na ko. dëgg la Ousseyn yàgg nga nag 2003. allahu akbar. 2003 laa commencé fréquenté pour ñu xalaat. waaw âge Ousseyn lañ nekk nii âge am âge am ñaata la yow ay à peu près à peu près à peu près. maire kan mooy maire. <laughs> saa yi mais nag Pawlish xam ne li nga ko fréquenté. Eh, frigo boobu mu ubbi lam la jox nga naan Pawlish yow wéroo <laughs> fan nga tëdd ko sax. ah, ah. ah, ah. moom. ba dix heures inspiration dix day day xalaat lépp ci àdduna kër ko piscine ci waykat yi dafa am fenn. dëgg la dëgg la de saal benn lañu sax fan ko sax ci biir kër gi yàlla loo xalaat ci kër gi da ngay xalaat rek mu dem man dama jaan ma ni kii <laughs> ay jaan ay jaan gisoo fecc bi gis naa clip bi nag clip si am nga ah ñoo ko. oh Pawlish clip bi. non Viviane clip bi. te te way xaaj te moom daa am xaalis. Hmm. xam boo génnee gis li mu gaari nga xam am na xaalis. ah romb naa ko. ah d' accord am na yeneen yu bëri kii bi boo booyee problème ay comptes xam eh, toll. ji Pawlish Mbaye xaaral ma répétition boobu répétition problème xam nga jëmi ji kii moom moom mu enregistré bërëm bëri ko. Hmm. Laye Diagne. Mm-hmm. Laye Diagne ah kii mooy Laye Diagne. kii laa doon paas. mu nekk sa sa arrangement.

Bise ki moom ki moom nattu àdduna barki na nga tëj sa buntu appartement nag ah xaj looy wut chien dem concentré wu. far force foog a di génn. far force takk ku mel nii. far force ma ñëw sama xel. mais man nag da nga am lu kenn amul nag. Viviane ñëw sa xew toog nekk à l'aise demul fenn. dégg ma dama ko promettre leen dama ko ba son mu nekk Sénégal ma takk jabar. Eh. moo tax man tubaab laa loo promettre dama koy def. Eh. li kër gii day sa kër biir ak kër gii nga dugg kër gii nga dugg tey amoo fi sens interdit kër gi nga dugg tey dugg nga si ëttu yaa rasulullah dugg nga ci ëtt ba nga xam ne ràññeewuñu lu dul jullit ak doomu aadama foofu nga dugg tey kon nga fay xam ni dugg nga fa xam ni mooy nit ñi nga xam ni ku leen bëgg ku leen bëgg ku leen bëgg ñu bëgg la ku leen bëggul ñu bëgg la Abdoulaye Mbaye yëkkati nañu soxna maam jaara laahi tekk ci sa loxo bis gi tey yontu yàlla isa alayhi salaatu wassalaam ca Cambérène muy ndamu ndax bërëb boobu ah bërëb la nag ci bërëb du lu ne la fay defe déedéet ku seetlu xam ni mbirum appel lu ni mel rek lañ fay xewal waaye nit ku ne yow doomu aadama joxal sa boppu yàlla dundal rek te dem la yàlla noppi na pour jox la ka waaye maye nañ la fa nga xam ni fu yaakaaru la lool maye nañ la ka fa nga xam ni nit ma su faa am yaakaar ba janoog maam maam gàntal sag du tas yaakaar hmm. ci bërëb boobu dina ci wàllu xame ñu lay woowee Pawlish ci mbirum àddina xam la ci sëriñ Basir xam ni moom sëñ Bas mii yow mii Ablaye Mbaye Pawlish xaritam nga ndax ba ngeen di ku la waxoon ni jox loxo jaar nga gaskan du ko loolu dëgg la yàgg lool ci géej ci géej Ablaye Mbaye dogalu yàlla mi ngi noonu nga daan ñëw di ma jox loxo ree ma ree ndekete yoo ndekete yoo yàlla noppi na ci ay dogalam ku yabu sant yàlla ku yabu jël suñu lépp jéem ko jox suñu boroom billaay perte nga àddina ak àllaaxira fii nu ne muy àddina yàlla subhaanahu wa taala moo ñu fi mënal dara fa nu jëmit moo fa man dara su may wéeru man damay wéeru ci ki nga xam ni daf maa mënal dara xam naa ni xool ba xool mbindeef yi may gis mënalul ma dara nag yàlla xam nag ki ma mënal daal mooy sunu borom subhanahu wa taala kon Abdoulaye Mbaye xame bi yàgg na xaw ma woon ni lii jur sama baatin yeggu fa sama zaahirin yeggu fa ndekete yoo yaa ngi dame waaye nag yàlla baax na man nag hmm. day jëmma ja nga xam ni ah am naa doom de. am naa doom de bu jigéen ni moo boo xam ni maa koy jur man sëñ Bas. waaye nag. dama koy wax ni. doom jëma jur sax. yow laa gën a bëgg. ka moom mooma. waaw yàlla seede na ko. loola yàgg na. maam jaare mii.